wa rahmatullahi wa barakaatuhu jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare ci As-Samadiyya màggal seen mbokk seen xarit Muxtaar Kébem Cheikh Saalihu Mbàkke tàmbaleen yóbbeeg ziyaar bi ci saaxibul fadila al cheikh Mouhamadou Muntaqa xafidahu llahu wa raa wa waffaqahu wa tawalla di ki waaye di jagleel ab nuyookub ziyaar al cheikh Abdou Samad Mbacké ibnu cheikh Chouaïbou Mbacké radiallahu anhu di nuyu bokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy topp ci fépp ci diggante internet bi yeeg télé bi yeeg média yëpp rek ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaare rawatina nag ci fan yi nga xam ne mooy fan yi màggal gi fan yi ñu toll bokk yi bu taarix delloosee boppam wala ñu ne histoire bu delloosee boppam fan yi ñu toll rekk moo doon fani waajtaayu cheikhul xadim cheikh ahmadou bamba ndax dix-huit ci weeru safar la woon muy fukk ak juróom-ñett te fi mu nekk nii làq nañ ci fukk kon jege na lool ba muy takk bagaasam ya waaye nag dafa amaat benn taxaw seetlu rek bala ñoo ñëw ci yaa jumlatan jiñ leen digoon tukkee ngoogu boo xam ne ki koy bëgg a tukki bu dee gëm yàlla bu dee ragal yàlla bu dee bëgg yàlla bu dee islaam jaral la lu ba nga tay la ci sa bakkan waaye bu dee islaam jaral la nga gàddaay sa njaboot bàyyi say bokk say taalibe say am di jàmm réew mi nga miinoon barab yi nga miinoon bu la ko lislaam jaralee nga bàyyi ñooñu ñëpp takk say bagaas di dem te fa ngay jëm xamoo fu mu doon xamoo ñaata fan mbaa ay weer mbaa ay at nga fay am xamoo sax ba xam da dellu seem ndéet bay xam kañ ngay dellusi si yi dëgg-dëgg mu'min dëgg-dëggi moxsin dëgg-dëggi muslim mooy cheikhul xadim cheikh ahmadou bamba ba bam koy def disowu ci kenn ba kenn di ko ci jox xalaat naan ko dangay dem wala dangay toog néewul kenn nit soxla naa la ci tukki bi ba ngay xalaat ca dem nga wala ca toog kenn nit jëlul alalam di ko financeel wala di ko ci dépenseel wala di ko ko joxeel ngir tukki bi mën a mel nim ko bëggee yóbbaale wut ci njëfandaay lu nit di jëfandikoo mu tudd ab yóbbal muy almazat gi ñuy wax gëfra te zaat di nekk ca biir yóbbal di nekk ci biir moom day ay téere la yóbbaale ak i jumtuwaayal yi nga xam ne ci lay sukkandiku mën a liggéey muy xalima ya ak daaya ak ya mënta ñàkk ngoog boo xam ne jullit yépp ci war a maase tiire ci ay leçon mbokk yi niñ ko waxee léegi rek jógul ngir ànd ak kenn kenn jàppaliwu ko fam jëm xamu fa sañam àndal ay noonam lañ noonu yooyu bu doon benn noonu képp lañ ko booleel noonu ba di ko fexeel dana doy ndax bu kenn yoree ngànnaay ka ca des yorul ngànnaay defe naa boobu guerre mën naa bañ a yàgg nga noon yooyu nag am ay moyen am ay fuñ mën a teg seen tànk ci bari lool ay ngànnaay bari lool ay pexe bari lool ab lim bari lool ay ñu leen xam ndax fu ñu fi wàcc fu nekk ñoom foofa xam nañ nañ fa wàcce ak waxtu wañ fa accès ak kañ lañ fay déparé ak keneen kuñ ko war a passé mu mel ñu koy paasante ni bal kooku dëy suñ borom rek a ko mën a jàppale bu mucc ci ñooñu ak gëmum yàlla gu mooy tax mu nangoo ànd ñooñu waaye ñooñu ànd ak ñoom te saalitoo dëgg dëggi gëm la cheikhul xadim cheikh ahmadou bamba kon takk na ay bagaasam ànd ak ñoom ci kaw waaye nag ba mu teqalikoogu waa suuf la ko sun booleeg waa kaw ñooña nag ñooy wéttalam fu fi mas nekk ñooy nekk ci wetam sallallahu alayhi wa mooy njiital tukki ba kon day mel ne asamaaw jokkoon ak suuf ci senegaal li jokkale asamaaw ak suuf mooy jenn jëmm ju mag ju màgg ju dib sénégalais islaam am fa ndam kon jëmm ju màgg a màgg ju dib jullit waaye yoonu murit am fa ndam mooy jëmm ju màgg a màgg joo xam ne moo sos yoon wi lii day ku ko bàyyi xel sun boroom musal la ci kiñaan musal la ci at tarafo muy kawe kawelu musal la ci at taali jàpp sa bopp mu ne nongu ca kaw ku ci mucc ci yooyu war nga bu waxtu wi jotatee sam xel dem ci ki deful liggéey bu rëy boo bile di Seexuna Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu wa ardah liggéey bu rëy boo xam ne bu ko beroo woon moom koot yey na ndax moom rekk woon kenn jàppalewu ko la ca gën a kiimaane nag mooy diirub mi ngi ci tukki bi ak bim tukkee gut ak bim tukkee ba ñëw ba toog del déglu ay waxam ndax sëriñ Touba mas naa wax lenn lu génn muslimuuna muminuuna moxsinuuna amut lépp ci la ko tënk sun boroom mayal jullit yu góor yi sun boroom mayal jullit yu jigéen yi sun boroom mayal way gëm yu góor yi sun boroom mayal way gëm yu jigéen yi sun boroom mayal ñii rafetal tey aw góor waaye sunu boroom mayal ñii rafetal te diw jigéen kon moom boole na ñépp ca la mu am loolu nag googu ngor jooju teraanga jum nangoo bokk ak ñépp di ñaan fa kenn nekkul tey dale ñépp loolu moo waral itam sunu boroom nag du ko def lu dul nag nosub ñéppit nekk ci ay loxoom ndax daa def lu ko jar zimaamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtuhu min malikin qaada bil anyi al anyu mooy jegeñ mooy loo xam nga koy wut rek da ñëw daal di ñëw directement ci yow kon sëriñ bi jagleel gi ko sun borom may mu boole ñépp ci lennam te sonalul kenn ca boppam loolu moo tax muy koo xam ne nag bëgg ko sopp ko wóolu ko doyloo ko day taxaw taxawaay bu rëy rëy rëy ci diine lislaam bari na ko ñuy fonk di ko màggal àggul sëriñ bi ci we waxuma ko nag li taasub pour farfarloo waaye ci ay analise rek laa doon waxe ndax li muy ñaan boo ko dee déglu ak ni mu koy ñaane teggi ni ñaan yi muy jiital ak jox gi muy jox suñ boroom ab sañ-sañam bu mat sëkk du seelutu ko dara xamal ko ne ko nag yaay boroom lépp sa gaa yii di sa nit ñii di sa bindeef yii di sa jaam yii ku nam ku ña ku nangu ak ku bañ yawa kon nag yëggal leen musal leen baal leen kon ku mel noonu wax dëgg yàlla ku ko jox dara jaam sun borom jox na ko dara jaam waaye ku ko bëgg xañ dara jaamit sun borom jox na ko dara jaam ku ko jox dara jaamit am na daraja ndax daa def lu ko jar mel nu ko jar wax lu ko jar ku ko ko xañ itam ci lisaanul xaal dana taxaw ne la kii mooy boroom daraja joo xam ne boo ko bëggee xañ daraja yow mi ku ko bëgg xañ dangay ñàkk daraja te moom mi ngi ko bëgg xañ dafay am daraja boo jàngee wa kaana xaqan alayna nasrul muminina noonu mu ko tënkee wajjahtu kulliya bi xamdin wa shukur ila waliyi lmuminina wa shakur kun yaa waliyu yaa qadiru yaa nasir lil muminina innaka la haadi al basir kun nekkal sunu boroom na nekkal muminoona yi ndax yow kat yow rekk a baax ci ñoom yoway aji gindee ji nga xam ne fi ngay jaar da koy xam kon nag waay waay dimbaleel nekkalal way gëm yàlla yi adhabta fawran li siwaana kulla man laysa yakunu muminan laysa yakunu musliman laysa yakunu muxsinan yaada zaman nafactanaa bi afdalil imaani faltanfail jamia bil amaani nga xam ne amaan muy sécurité wala ñu ne kóolute Sëriñ Tuubaa ñaanal na ko ñëpp ngir bëgg ñépp mucc xeetu yonent bi salaa jaral ko lu nekk ba lum am lu nekk ñoom la koy partageel ñoom la koy séddale ñoom la cay boole ñoom la cay waxaale ñoom la cay limaale te bam leen cay limaale kenn ku nekk yaa nga ci sa bopp kon nag tukki bi mu demoon fu fi toog di ñaan fàttewut ñam bàyyi gannaaw fu amee occasion bu gisee ko jëm si fa ñoom ma nga leen di feddalil lam leen bàyyee woon dem ba dikk lam leen bàyyee loon jëm kanam Cheikh Saalihu Mbacke radiallahu anhu nee na bi sëriñ bi jógee ci géej gi te demagul ci jéeri ji maanaam demagul Mauritanie daarul mën naan dafa meloon ne Amérique vingt quatre sur vingt quatre amul koy nelaw dañ daan xoole burle burle mooy tépparle boo dikkee daarul mën naan sëñ saaliw nee na da fekk koy ñuy jàpp ak ñuy julli ak ñuy jàng ak ñuy zikkar waaye doo fa fekk koy nelaw diir bi sëriñ bi ñibbisee ci ak lim fi amaat bam demaat gànnaar def fa yetti at neena na daaru mën naan comme Amérique daaru mën naan googu mel ne Amérique buñ ko nattalee ak Mbàkke Kajoor gam tàmbalee woon woote ba day mel ne Mbàkke Kajoor aw jiwu la woon waaye nag ngirteel jiwu wa wala ñu ne lañ jëlee ca jiwu wa mooy daarul man naan daarul mën naan it dafa ñëw di saxal ne tubaab yi li ngeen wax du dëgg te amuleen preuve muy amuleen lu leer waaye dangeen xam ne wallahu mutimmu nuura walaw karihal kaafiruun yóbbu ngeen ko dir bu yàgg muy tukki go tukkikat boo xam ne bi mu ñibbisee daa mel ne kon fi mu dëkkoon ab étranger la fi war a doon ndekete yoote lam doon woote tey la waalo gën a aay tey la gën a dëgër tey la woote bi gën a tege ciw yoon bañ ko fi jële waatee yóbbu ko gànnaar ba mu demee gànnaar waa gànnaar ñoom xam nañ waaye bi mu ñibbisi waatee ci yenn jolof am fa juróomi at itam daa melaat ne lañ doon bañ rek moo wéy di am ba tey murit bu dëggu ci muritam jaamukatu yàlla bu dëggu ci jaamoom waaye taaliba bu nangoo topp ab sëriñam ci tawul inqiyaad muy womatu goo xam ne day ànd akook coobare kenn du la forcé sëñ bi du la laaj nga di ko yët woowu la nga nekk fa moom wuy ji ko néew la dëkkal fii nga toog fa dëkk fa tubaab yi loolu lañ doon bañ waaye buñ xoolee amaakin yi muy barab yi nga xam ne sëriñ bi dafaa jaar nag mooy gën a yéeme ba mu ko nee cocc Mbàkke Kajoor andi ko bawal indi ko Touba jàll ak moomaat ca weti Jolof muy Mbàkke Bari kon yooyu barab boo ko xoolee distance yu soree la mu jóge fa tukki bi mu dellu siwaatee fa mu jaaroon mu jaar fa ne leen man mi demoon ñëw naa ña ko toppoon ne ko ñun ñi la gëmoon gën nañoo dëgër dëgëral suñuy laxasaay ba mu agsiwaat Daaru Salaam ba jaar Daaru mën naan mu mel ni Amérique kon boo xoolee ci njëkk sëriñ bi di dem bi mu dellu sowaatee daa mel ne jant te ba muy dem daa meloon ne ay biddiw loolu lay niroon ndax woote bi gën naa tasaaroo barab yi mu nekk gën naa yaatu taalibe yi ko topp gën nañoo laxasaayu kon tubaab yi li ñu doon wax ak sëriñ bi ak li sëriñ bi doon wax ak tubaab yi daa mel ne ñaar ñu déggantewut kenn ki di làkk anglais xamul dara ciy wolof kenn ki di waxe wolof xamul dara ci anglais sëriñ bi ak tubaab yi noonu lañ meloon fa bëgg ñu jëm fa ak lam bëgg ñu dégg ko ak lam bëgg ñu gisee na tubaab yi mënuñoo dem foofu moom itam nag fa tubaab yi bëgg mu dem fa ak nañ bëgg mu gisee na tubaab yi sëñ bi tam nangu lu jëm foofu daa joxoon ne ana fii waadin wa anta maa ngi ci xur yaa ngi ci xur wa ca des ñaari xur yi nag bu soree pour ñu waxtaan juboo day jafe loolu moo doon kon solos cheikhul xadim cheikh amatu bamba bi mu demee ba dikk lim fi bàyyi woon lépp a yokk lépp a développé wu njàng maag liggéey baag pas-pas pas-pas yaag ànd gaag bennoo gaag taalibi gaag saadiqi ga lépp la ko suñu borom yeggaleel ca nam ko bëgge woon kon bi mu gànnaar génn jiwaat ca yéen jolof muy côté jolof ba tey baatub jolof ñëwaat na ci waaye nag bawal gi mu woon itam ci lañ ko delloosiwaat muy njaareem fukki at ak juróom yi ñu ko téyee njaareem yëpp it nag daa mel ni njaareem moom soosa moom nee na alhamdulilahi bi ñu fi andee sëriñ bi ñi fa dëkkoon ñëpp it nee nañ alhamdulilahi bi ñu dëkkee ak sëriñ bi ña fay ñëw ñëpp di ko gis itam ku ñëw da nga naan alhamdulilahi bi ma gisee sëriñ bi kenn ku fay jóge ku nekkit lam lay wax da nga naan alhamdulilahi bi ma sëriñ waxee lii daa nafin bila dararin noonu nga koy déggee boroom njariñ la moom sëriñ Tuubaa te àndut ak dara ci lor kooku nag laa ne bañ ko bañ lu yàlla dogal la waaye bëgg koot itam nangul yàlla la ku la musta wax lu dul toppal sa boroom la mu waxoon ko ko ne woon damaa bëgg nga dénk ma nga dénk ma la ko waxoon ca gaal ga sa booba dox dajee rek ka leen boole mu ne ko na nga ragal yàlla foo mën a nekk nanga def rasulullahi sallallahu alayhi wa muy sab yónent foo mën a nekk na jël lislaam muy saw muy sa diine daal ko ne nag ku ko deful nag lam cey daj lii la ku ko def itam lam cay am lii la bépp wasiya boo xam ne Cheikhul Khadim mas na ko bind mbaa mu tombal ko nit ñooñu dégg ko mbaa ñu waxtaane ko ba keneen dégg ko ci keneen doo fekk benn yoon lam wax génn lislaam mbaa mu génn liñ tudde sharia muy li nga xam ne mooy loi islaam yi lépp ci lay tënku aw definam aw waxinam aw meloom bëgg-bëggam yépp mi ngi ko tënkoon ci li nga xam ne moo ñu fi indi tabano fi muy illaa li yaabuduuni ja ginnaaw xalq ga maa xalaqtul jinna wal insa illaa li yaabuduuni xilla bi nga xam ne ci la binde moom sunu boroom mooy ñu jaamu ko sëriñ Tuubaa nag bi mu ñëwee loolu ne dann moom def ko muy subaam muy ngoonam di bëccëgam di timisam di bëggam gim bëgg ci ku ko ko bëggale ku nekk ngeen bokk bëgg-bëgg ku ko bañ ku nekkin mu teqale kook yow su tuddee tubaab yi ay noon mooy daa xam ne bëgguñu lislaam waaye nag bam noppee ñoom amul ci ñoom soxla afawtu anil aada ila wax doon ay noon jéggal naa leen ndax sequma kook ñoom ku la mën a jéggal nag mooy koo xam ne da ko sequt ak yow mënaloo ko dara xëy na te moom bëgg laa mënal dara kooku mooy Cheikhuna Cheikh Ahmadou Bamba ci lañ mën a résumé ci géej gi kon tukkib diine la tukkib lislaam la waaye nag tukki aw xeet la nun wolof nun nit ñu ñuul nun africain war nañoo ndamoo Sëriñ Tuubaa bu baax gën a jaa tasaare am njàngaleem ci côté yépp ba gën koo wan waa bitim réew bañ mën koo dégg ndax ay rég la ay champion la yoo xam ne képp koo xam ne nangu nga ne dégg nga ko ca nam doone sañoo ko bañ ndax mantiq la mantiq dañoo wax ne ku nekk xam na ne ñaara ëpp benn kenn du ko weddi kon sëriñ tubaa fi gën itam noonu la mel boo indee lay ak xaraa in ya mu war a lënkalool daa nga fekk sëriñ bi di koo xam ne amut moroom kon tey ñu ngi tënk suñuy wax ci sëriñ tubaa amut moroom yi mooy daa dem fu kenn demut ba mu fay demit àndu kenn te lam fa am mu ñëw bokk ko ñëpp yéene ñëpp jàmm benn hadaf la amoon ci tukki bi muy bit mooy la lislaam taxaw bu lislaam taxawee itam na ko taalibe yi nangoo jëfe kon sunu sas noonu ba tey mi ngi fi booyagut waaye nañ ci góorgóorlu bu baax tey yeete dikk na ci résumé waat yoonu sëriñ bi ak lu sëñ bi doon def kuy laajte cheikhul xadim cheikh amadou bamba lu mu def nel mujahid la da doon xeex ci diine lislaam waaye tuurul deret tuur lu wut deret te lim bëggoon lépp am na ko radiallahu anhu wa ardaahu seen mbokk seen xarit muxtaar kibam cheikh salim rek moo ñëwoon ci yeete di nuyu tey gërëm ñëpp tey sant ñëpp di baal àq ñëpp te di ko baalu ñëpp itam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.